dal leen ak jàmm may leen ma nopp ma wax leen li gaal gi yab tey ëttub yéenekaay yu bëri yee yàbbi wax ci xaajaloo bi am ci kujje gi ak tustasar bi ñu nemmeeku Sud Quotidien xëy élection locale yi nga xamante ne ñu ngi ko jàpp ci ñaar fukki fan ak ñett ci atum 2022 élection yooyee nag des na waaye fi mu nekk nii bëlëg baa ngay commencé si carte gi parti présidentiel bi rawatina waa Benno Bokk Yaakaar dinañ jàkkaarloo ak ñeenti maami coalition yu mag a mag yoo xamante ne ci opposition bi la ñu bàyyeekoo yéenekaay bi nag di tëkkale politique bi ak fawum yooyoo ndax jongante bu taratar te métti moo nar a am ci élection locale yi waaye cool yi moom ak jiixi jaaxaa gi bari na lool ci yenn coalition yi yeewi askan bi moom ñi ngi yeewi seen bopp benn benn vox populi di ko waxtaanee Thierno Bocoum moom rocceeku na ci coalition bi ndax rëkk-rëkk yi si nekk neexul lijjanti booxum nag sëy na gannaaw ba mu lëkkaloo woon ak kii di Ousmane Sonko Khalifa Sall te déggoo moom mënul am benn yoon la jël na yoonu boppam mu mel ni rek la maam waxoon ni ay kuy yu baree bari mënuñoo bokk benn gétt ba noppi bokk benn mbalka bu ñuy naan bu ñuy di xiiroo ka ngaayoo ka rocceeku am sa wet ga ñi nga xamante ne ñu ngi dëgëral diggante yi direct news indi maître Abdoulaye Wade ak coalition bu bees bi nga xamante ne daf koo taxawal ne doole nag doxul jàmm Wade moom dafa xàll yoon wi bon ñëpp yéenekaay bi ne ab stratégie ak xelum ak dëgg la Wade miy wane ndax dafa bañ lank ni du bokk ak kër gi yeewi askan wi ba noppi indi coalition bu bees tàq ba tey yéenekaay bi ne parti démocratique sénégalais bi mi ngi si tànk gagné yenn coalition yi te nag Karim Wade mi ngi waajal ab dellu si ëttub yéenekaay bi di l'info du ñu xamal ne jamono jii waa Benno Bokk Yaakaar Diarra moom dañoo tëju jàpp seen ñàmbur ndax lu te réew moom li coow li di bari bari am na lu ko doy sëkk dëkk bi neexul njënd ak njaay mi ak njëg li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee mbës mi ak moo ko doy sëkk soxla libération ñëw yaatal ji ko dëggal ak ñi doon liggéey ak Big Togo fayuñ leen ñu ko nguur gi ne képp ku doon liggéeyal kuréel bi te Big Togo jiite ko fu mu nekk ni nag yaa ngi topp nguurub Sénégal ngir ñu daal di leen di fay seeni koppar di ci woo patron bi di Marie Lise nga xamante après contrat bi moom kenn gisu ko ko fi mu nekk nii nag képp ku doon liggéeyal kuréel bi te Bictego jiite ko fi mu nekk nii nag yaa ngi topp nguurub Sénégal ngir mu daal di leen fay seen koppar di ci woo patron bi di Marie-Lise nga xamante ne après contrat kenn gisu ko ñi ñu ci war a fay nag bari nañu ndax Bictego ba ñu ko joxee koppar yi nga xamante ne moom la waroon a tabaxee université Amadou Mbow dafa daan ne fes daw képp ki nga xamante ne nag waroon nañ la fay yaa ngi dox ko ñaxtu sippi lépp nguur gi ba tey ci libération di waxtaanee caat te mu bokk ci mouvement Y'en a ñu ngi ko doon déglu ca digg division des investigations criminelles wante sax sa mujjanteel ba kii di Thiat dañu ko mujjee bàyyi mu ñibbi l'observateur di ko feelu ndax nee na Thiat ñu ngi ko doon déglu ci wàllu càccum oto ak ñi ngi mel mi ngi ñëwaat ci digganteem ak Thierno Diallo te mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo boole kilifa Simon tamit ca wet ka moom tamit ñu ngi ko doon déglu eh, daal nay jukki jëmale ko ci wàllum passeport bu mu am foofule ca France ak port boo xamante ne daf koo abal Condé Collé mu dugal loxoom ci wàllum njuuj njaaj ci passeport yi wippliwu monsieur le juge nag fi mu nekk nii am nga loo yi ba tax na le soleil waxtaane ko indi ci xët bu yaatu ne xaalis sexe ak drogue bi si dëkk bi yéenekaay bi ne jet set dakaroise ak ñi nga xamante ne dañoo siiw am xaalis di ko def li leen neex di yaataayumbee waaye nag li ñuy wax rek kuy naan di ko nëbb bis boo màndee rek day daal di feeñ ñu tëjee xibaar yi ak li xel mënul xalaat te nopp mënu koo déglu muy ab waay bi nga xamante ne dafa sonn loolu amul lenn lu muy xalaat di jéem a tëddee gorom bu jigéen tëdd ak moom nekk ci yaramama kii de jaaxal na ñëpp am sa goro ba pare di ko def yi ni mel cey Sénégal sunu gaal lu nekk lay yepp nanu ñaar yàlla rek muy yebbi te bañ a këppu biiju tëjal